su su APR. Waouh. wala la relation entre le président Macky Sall et les les hommes du pouvoir d'aujourd'hui hmm. su n'est loolu nga bëgg ñu waxtaane déedéet alliance pour la république. alliance pour la république. APR laa wax en tant que parti politique. Wow. la mu le la ma warloo a ak candidat bi def na man mi d'accord loon sax. Hmm. ak Amadou. Wow. Ande naa mom. d'accord on te nga ko fësal nga ko rëbb. ñëpp dikk ko. nga ànd Mambo Diawo. terewul ande naa mom après Wow. léegi euh, dañ ne Amadou Ba joxuñ ko sax fo fond de campagne <laughs> Amadou Ba alliance pour la république moo ko xeex soo dégloo discours intervent sorti Aliou Sall mu ngi dëggal loolu <laughs> boo dégloo ñeneen ñi ñëwee Amadou Ba Macky moo ko xeexlu c'est c'est profond. xam nga xam nga lu ñuy laaj. waaye mooy lan la Amadou def ba Macky am taxawaay boobu. nan la Amadou def voilà d'accord <laughs> man man loolu man man am na taxawaay. ci loolu su nekké mom Aliou ma wax lolu ñeneen ñi wax lolu hmm. Cheikh Omar an wax lolu lan la Amadou def. effectivement Cheikh Omar an Cheikh Omar an toj na kaa si ci non dama ne lan la Amadou def. ba Macky def lolu Amadou def sénégalais yi duñ ko mëna xam mais li Macky Sall def ba ñepp jëne ko. wa dégg xam nga nak ma ndeysaan Macky mo mo mo moo moo bon ndey. ah bon. wa nit ki dina def dara nit te nit ki defu ko dara. mais ñi lan ma ci en fait preuve bu nga xamante ni ko woné dama ne. c'est-à-dire ñu wane ne. déedéet dama ne. waaw lan la Amadou def Macky Sall ba Macky Sall taxawee taxawaay bii Macky nga xam ne dem na bitim réew wër na Sénégal ak moom conseil des ministres décentralisé bu créer ay conseil des ministres délocalisé pour Amadou nit ñi xam ko fu mu dem ne leen mooy sama candidat aw ma beneen candidat dem bitim réew ne leen mooy sama candidat aw ma beneen candidat waaw lan la kooku def ba Macky taxawee taxawaay boobu. ok lan Maxade, Sall wax na ci interview ne man dal pourquoi je ne comprends pas la présence des médias internationaux ñu yak sama der ci troisième mandat. qu'est-ce qui se passe lan la président def lan la lan la Amadou Ba def ba Macky Sall taxawee taxaw c'est la question. d'accord parce que ñi wax Macky dafa contre dafa xé Amadou Macky daf président Macky dafa def li dafa def ni dafa def ni les gens ne se posent pas la question lan la Amadou def est-ce que su Amadou defulone Macky Sall dina taxawé taxaway bi. Hmm. question laay laaj de. tey question la mais question bi dafa nah, ni confirmation. j'ai dit affirmation lan la Amadou def ba Macky taxaw taxawaay bii est-ce que su Amadou defuloon Macky dina taxawee taxawaay. est-ce que li nga wax dana yi Amadou ndax am Amadou Ba mi war dafa war a génn lan moo xaw ci ñaar ñi àndoon ànd bi rafet lool président de la république premier ministre de la république lan moo xaw. dama ne waaw président Macky Sall desalul dara Amadou Ba. Amadou Ba mo desalu dara déedéet nekkoon na ko premier serviteur am dama ne ko wër a ci réew mi CVM su baaxee waaw Macky Sall la <laughs> Ablaye Wade dafa Ablaye Wade da ko nommé déedéet benn nomination la am ci nguuru Ablaye Wade muy directeur général impôts et domaines bu ko xamal déglu rek ancien ministre de des finances hmm. de l'économie des finances ancien ministre de des affaires étrangères ancien premier ministre ancien tête de liste départementale de Dakar ancien candidat à l'élection présidentielle Macky Sall moko defal loolu yeb d'accord sen CV su baxé Macky Sall la comme Aminata Touré rek ancienne envoyé spécial ancienne directrice de campagne ancienne président du conseil économique et social ancienne premier ministre ancienne ministre de la justice Macky Sall la. Eh, Macky mo bune ne ancien nangam ancien nangam. Abdoulaye Wade la wa d'accord il faut nga waxul wax loolu. bañuma ma d'accord. Abdoulaye Wade la du dëgg. Hmm. ñooñu li ñu am ci barke gannaaw yàlla ci barke Macky Sall la kon Macky Sall wàccoo na ak Amadou Ba. Macky Sall na Amadou Ba. wàccoo na mu jeex ba pare nag ne ko yaay sama candidat. Hmm. dem bitim réew taxaw ñëpp toog mooy leen mooy sama candidat. aw ma beneen candidat de substitution. aw ma plan A aw ma plan B aw ma plan nangam Amadou mooy sama plan A B C D E F Z ba Z. léegi ku la defal loolu. Hmm. wàccoon ak yow léegi dama tax Macky Sall battre ko campagne ndax dafa am loi bu ko interdit le de la république xam nga jabar. <laughs> ko wax yow man trop. jabar. ok li des da ngaa bëgg ñu defal Abdallah du Aly Ngouille Ndiaye du candidat Mame Boye Diao du candidat ak kanati ñooñu duñu candidat bëri na de yow yaay candidat bi mooy takkal nañ la jabar ñii ne ànduñu ci Ablaye Daouda Diallo du bi ñii ne ànduñu ci loolu dem nañ seen yoon Ablaye Daouda Diallo toog yow ñu ne yow yaay candidat mooy takkal nañ la jabar la ca des nag yaa ko war a def ah. yaa ko war a def de. wala. ah Macky Sall lu mu defal Amadou Ba rëy na lool mais. waa léegi nag est-ce que Macky Sall président Macky Sall dina takkal jabar Amadou Ba. Hmm. jël ko yóbbu ko ca cérémonie de lune de miel def la def la mu war def. waaw d'accord damay laaj. léegi moom lu mu def. léegi nag su nekkee dafa bëggoon ñu takkal ko jabar ba pare. Hmm. defal ko loolee bu nu nekk. d'accord moom moo waroon def la ca war. gis nañ ne benn bokk yaakaar député benn bokk yaakaar yi.